loolu dañ ko war a wax xamal sénégalais yi électricité su yokkoo ma jël bu ndaw mhm. tailleur bi ci bopp koñ bi day yokk prix il est obligé le le boulanger day yokk tey prix yokk na c'est tout à fait lépp ci gestion bi ñuy gérer suñu Senelec la ak gestion bi ñuy gérer suñu mbirum état dañoo soxla xaalis mhm. élection nañ jëm faut que nit ñi xam li xew la moo xew ba les ñu naan les caisses de l'état sont vides man de li ma ragal mooy. ils sont en train de ba mu la comprendre rek. caisse de l'état est en train de tirer nos maigres moyens euh, orienté parce qu'il y a un déficit parce qu'ils ont besoin d'accompagner leur candidat dafa am dafa am déficit benn euh, Abdoul Mbaye déjà dina faral di ko wax mhm. ne dinañ dem ci administration Sénégal ba nga xam ni big sax buñ jënd duñ ko am ndax jafe-jafe ji am ci réew mi mais loolu yëpp ci euh, pour les trains de vie politique politicienne maanaam politique politicienne lu mu laaj nga war élection su nga génn xaalis bu bëri teg loolu nañuy dakkal. loolu rek loolu ko dakkalee loolu rek Macky Sall na train de vie wu état bi benn euh, service yu bëri société yi seen li ñu leen doon jox comme ay avantage teggi na ko téléphone arrêté woon na ko oto yi ñu leen di jox bàyyi woon na ko li ma bëgg wax mooy malgré tout ça sax. Euh, l'état daf na subventionné li nga xam ne mooy li Sénégalais yi di jëfandikoo dernièrement la ñu FMI am lu ñu sant ba ñu xaw a teg seen loxo tuuti mais téye na prix yi euh, at yu bëri yoo xam ne bu du woon loolu dina yokk. loolu soo génnee laaj ko Sénégalais bi nekk ci biti na la gis naa ko yëg na ko man li may yëkk ak li ñu gis te li ñuy dégg Sénégalais yi di ko wax te mu nekk jafe-jafe lool ci réew mi te ñu war ci wut. ci biti di na mais une fois le pouvoir c'est réalité. ma ma ñëw rek ci benn misaal te am solo nga wax ci mbirum wàññi yooyu ñuy wàññi mhm. tey jii ñi ngi yokk électricité mais su ministre yi DG yi suñ seen salaire suñ leen doon jox ne la par exemple deux millions mooy sa salaire waaye sa électricité ak sa courant yaa sa ak sa ndox yaa koy sentir li Sénégalais yi di dund ndax yomb na lool nga ne da ngay wàññi pour rein de vie de mais est-ce ngi jëm ci économie wu réew mi est-ce que mi ngi dugg fi mu war a dugg non mais c'est très simple c'est-à-dire que mbir mi soo ko dugalee fi mu war a dugg entreprise yi fi ne te maa ngi koy faral di wax sax ndax damay faral di bind ci ay article la di wax ci mbir yooyu ñi nañ leen war a expliquer cycle bi te président Abdoul Mbaye yàgg na ko expliquer yàgg na ko wax entreprise soo leen joxee ñu mën a souffler ñu mel ni seen télé bi wala bu mu ti doon quel que soit le secteur dina mën a employé nit ñu bees employé nit ñu bees day mën a tax ñu mën a laal gafagaawu sénégalais yi muy pouvoir d'achat ah, day day tourné su boobaa ñoon dinañ mën a dem ci service yi jënd yeneen mbir di fay impôt impôt boobu delluwaat ci nguur ñu utiliser ko bu baax ci nan ci infrastructure yi tali yu baax hôpitaux santé bu war loolu